asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit ñi mbokki waa addina bépp ñu ngi leen nuyu di leen siyaar teyit di leen baal xaq teyit di leen baal xaq tey ñaan sunu borom subhaanahu wa taala defal ñu ak jéggal ci saahir ak ci baatin di amal siyaar boo xamante ni siyaaru boppam la jëmale leen ko si weeru tedd yi di weeru sahru ramadan sahru mubarak di leen si ñaanal te ñaan suñu borom subhanahu wa taala nangul si suñu koor nangul ñu si mboolem ibaadaat yi ñu si def ñëpp dafa ñu si kattan boo xam ni kattan bu yaatu bu jégg dayo ba nu mën di ko dundee comme ni ñu koy ni ñu ko ni comme ni ñu ko bëggee ñu koy dundee si weeru koor bi ñu koy dund si dundin woo xamante ni dundin lu sax dàkk lay doon ginnaaw nuyoo beeg ngi leen di safoo bu wér ci teewlu gi nga xamante ni yéen ñu koy teewlu ci jotaay bii ñuy am ak di jotaay déglu sa njëriñ si seen seen bii di MIG ñu ngi siy rafetlu bu baax a baax topp gi ngeen koy topp di leen si ñaanal bu wér wér kon mbokk yi su ko defee ñu dugg si tomb waxtaan bi ñu bëgg am muy waxtaan woo xam ne lépp rek dañuy bëgg di ko tënk si tënkin woo xam ne dara du si génn weeru tedd wii di weeru koor ñu bàyyi xel ne koor comme nin leen ko waxee koroog ci waxtaan wala jàll mbir la moo xam ne mbirum tàggatu la mbir la moo xamante ne tamit ay ibaadaat yu yaatu ñoo ci nekk yu bëree bëri yoo xamante ne dañ ko see sant doomu aadama bu jàllee nga war di ko di ci tàggat sa bopp di ko def lu si mel ni toog gi ngay toog diggante fajar ba guddi te loo lekk ak lu si mel ni nawaafil yi nga xamante ni yaa ngi koy amal si guddi gi ak yu ci melni ni alquran gi nga xamanteni ni ngi koy beuril di ko ak yu ci melni ni yi nga xamanteni ya ko tanal sa bop di def mo xam ci sa kurus la wala yenen ak yedd muy wirdi yi nga xamanteni ni ngi koy def ak téré mag ni bax ñi ngay tok di ko diko jang ko ak yu ci melni ni sarax yi nga xamanteni ñing koy beuril ci wéru tedd wi lolu lepp dafa don lo xamanteni ne la go xamanteni bu weeru jàllee tamit do no wër di continuer diko ko amal di def ndax li nga xamante ni moo jiitu muy toog gi ñuy toog diggante fajar ba timis te duñ ko lekk loolu yow doomu aadama bi war nga see bàyyi xel bu baax a baax ne am na ñoo xamante ni daanaka ci loolu lañ dëkk amul lu ñu lekk pour ñu am lu ñu naan comme yeneen naa yi day doon loo xamante ne da leen di jafe baa gis loolu nga xamante ne loolu ci leen dëkk mën nañ leen woowee ay faqiir walla mën nañ leen woowee ay miskin nga xam ne loolu olof di faral di wax naan ñi seen loxo jotu seen digg ginnaaw nga xam ne ñoom daanaka si loolu duñ dëkk daanaka buñ ndékkee duñ ree duñ añ wala buñ añee duñ reer ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñun ñi nga xamante ni ñu ngi tënku si loolu war nañ di bàyyi xel ñooñu bu baax baax a baax a baax ci toog gi ñuy toog bëccëg gépp duñ ko lekk duñ ko naan nan bàyyi am na ñoo xamante ni njëkki koor gi ñëw daanaka si loolu lañ dëkk kon léegi bu leen bàyyi xel ana lan mooy war mooy ñu dellu dar leen gestu di jën sunu ndimbal di ko jëmee ci ñoom buñ leen mënee jox loo xamante ne lu mën a togg la lekk ko ñu def ko bu buñ leen mënee jox loo xamante ni koppar lay doon pour ñu uti si luñ dundalee seen bopp ñu def ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen donte sax ci jëmmi boppam kàttan gi mëtewu ko ñuy def te li si des ñu koy mottali ak yeneen beneen bi des muy taxaw gën a taxaw guddi gi di nawaafil yi loolu doon jaamu yàlla goo xamante ni du farata waaye tamit jaamu yàlla la bu yaatu jaamu yàlla la goo xamante ni am gi am solo jéggi na doy te yéeme na loolu ba sunu borom subhaanahu wa taala digal na ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ci suuratu saar bi nga xamante ni moom la ñuy wax suuratul muzammil taxaw gi nga xamante ni mi ngi koy wax yonente bi ne ko dee ko taxaw guddi gi loolu doon lu am solo muy taxaw guddi kon ana lan moo tax taxaw gi nga xamante ne yaa ngi koy taxaw guddi si weeru koor gi bu weeru koor gi jàllee mënoo continuer di ko def donte mënta nekk chaque jour wala mënta nekk si temps boo xamante ni yàggaay gi de da da sa yaram dina ko attan wala yeneen ak yeneen wala sa cawarte may la ko xanaa kon lu mu néew néew néew néew war nanoo góorgóorlu ba guddi gu ne bala noo tëdd donte ñeent rakaa la ñun na waay fiil ngir jàmmoo ko sama borom subhaanahu wa ndax loolu dina tax mu gën a dëgëral li nga xamante ni si jëmmi boppam moom la sunu borom subhaanahu wa taala bëgg mu nekk si ñun dina gën a dëgëral li nga xamante ni si jëmmi boppam mooy topp gi nga xamante ni ñu ngi koy topp yàlla jox ko suñu yitte ak yeneen ak yeneen tàggat yooyu yëpp dina nu si yóbbu beneen bi si des mooy alquranul karim bi nga xamante ni am na si ñoo xamante ni daanaka weeru koor bu weeru koor si leen yëree téere borom bi subhanahu kon jàng bi nga xamante ni ñu koy jàng alquran ci sell ju màgg ji di téere borom bi subhanahu wa weeru koor wala guddig weeru koor wala subak weeru koor noonu ñu ko siy jàngee bëril gi sax dëgg la si weer wi la war a ëppee bi max naa bi fekkoon ne danga daan jàng benn saar njëkk weeru koor bu koor bi ñëwee war ngaa dolliwaat yeneen ñaari saar mooy ñetti saar wala yeneen beneen benn saar muy ñaari saar bi fekkee ne nag yow moom weeru koor ba weeru koor daanaka ngay jàng alxuraan dëggantaan am na solo baax na ndax weer wi weeru jàmm yàlla la weeru sellal la waaye boo mënee tamit bu weeru koor ba jàllee donte sax li ngay yër téere bi yërim gi la nga jàng si si si ay aaya lu bëri na jàng aaya yoo xamante ne aaya yu dëgër yoo xam ne dina dëgër ci sa biir ba li des si bëccëg gépp yenn mooy yàlla yi sa xel du si jëm sa xol tamit du si jëm ndax li gën a bon te gën a danger mooy ki nga xamante ni toog na suba ba ngoon te téere bu boromam subhanahu subhanahu wa taala bi yëru ci ben ay jang ko ci ndax jang gi dafa am loh xamanteni dina ko def am loh xamanteni dina ko dindi ndax alquran mag na mag go xamanteni ak teddayam go xamanteni xey rek jang si ben ay mo gën fuf ngay defat leneen lu bokut ak mom kon lolu doon lo xamanteni war nañ ko seen bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci si yow mi nga xam ne weeru koor bi teew gi muy teew rek moo lay boole nga yor sa kurus di def say wird wala moo nga jël téere gaa yu baax di ko yër wala moo lay boole yeneen ibaadaat yi yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xam te ni bu weeru koor ñëwut moom dëgg-dëgg lépp delluwaat moo ko fa nga daan placé yaa ngi siwaat si say mbir àdduna loolu def bi nga koy def war nga see fas yéene si yéene goo xamante ni bu jàllee donte sax wird yooyu ngay def ni nga ko daan bërilee si weeru koor bi doo ko bërilee war ngaa lu mu néew néew néew néew bu weer jàllee bala ngaa tëdd si sab kaw lal war ngaa def ay wird yu am solo moo xam ay istighfar la ngir jëmale ko si sa borom subhanahu wa taala mu jéggal la say bakkaar moo xam ay laa ilaha illallah muhammad rasulillahi lay doon ngir kenn lee sa borom subhanahu wa taala di tudd kennam gi ak amam gi ak dëgëram gi ak di di di si firndeel ne yeneen bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam suñu borom moo ko yónni moo xam ay subhanallahi asim ngay def moo xam subhanallahi wa bihamdihi ngay def moo xam moo xam moo xam moo xam ay tur yàlla nga si sikkar wala leneen leneen ak leneen waaye tamit sa kurus googu si tudd kenn ku sa borom subhanahu wa taala ndax moom rek mooy aji woote moom rek lañ war di woo si suñuy course waruñu see waat leneen lu dul moom ba si téere gaa yi baax yi di jàng moo xam xasida yi Serigne Touba moo xam xasida yi Baye Niass la wala moo xam xasida yi Siri Alxaaji Malick Si la wala moo xam xasida ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen la jàng gan koy jàng bul ko jàng ngir. ne bu weeru koor bi jotee naa ko teg waaye na nga koy jàng ngir muy sax ba faw te boo mënee sax di mokkal bay bi moo gën tey jàng nga nga jiital sa ko ngir sa boroom subhanahu wa waaye jàng ko ngir barkeeloo ko nit ku baax kooku nga xamante ni moom moo bind téere boobu yooyu yëpp xel biñ si war a di bàyyi ak di si def tafakkur yu am solo di jëme si ibaadaat yooyu ana nan nga koy organiser ba boo génnee si période bii nga toll muy période weeru koor bii nga mën di ko saxal ak nekk sa comme na nga ko bëgg na nga ko bëggee ba dara du la si sa xidma yi nga xamante ni yaa ngi koy def muy sa liggéey waaye teewul tamit xidma yi ni nga koy defee muy liggéey bi tamit teewul di nga jox àqam waaye teewul ibaadaat yi tamit di nga ko jox àqam comme ñu ne ko Serigne Touba Abdullahi wa Xadim Rasulihi diglee daan ni ngeen liggéey te boole ko jaamu yàlla muy alxidma wal xibaada loolu doon loo xamante ni lu am solo la ndax loolu doomu aadama bi si la mën a jagalee addinaam ndax xidma gi si nga mën a li nga xamanteni mom ngay defare si sa aduna yi ci beure beure ta war ci sa jëm waye ibada gi tamit naka non di nga si fàggu sa aduna waye li si ëpp solo si fago gi moy yowmal khiyam ba nga xamanteni fa nga jëm ngir ab tukki ci la nek yobbal gi moy ibada yi nga xamanteni ñing koy def ngir selal ko jëm ko ci sunu borom subhanahu wa taala ba fa nga xamanteni fa la ni ñibbiwaat bu na agge mu ñun yobbu yóbbu ci bu doon mën faa yóbbu loo xamante ni dëggantaan dina doon xéewal boo xamante ne dinañ ci mën a xéewloo si lu dul ñuy dugg si yeneen safaan bi walhiyaas billahi taala kon yooyu yëpp doon loo xamante ni jàngat la yoo xam ne njortu naa ni ku déglu te bàyyi si xel te def si xalaat bu yaatu dina doon njëriñ loo xam ne dina ko mën a dugal si yu bëree bëri si yëggale ko si boromam subhaanahu wa ba mu gën koo mën a jege waaye tamit su si nekkee dina ko mën a fankal yu bëree bëri yoo xamante ni yu koy lor moom lay doom doon loraange gi nag weesuwul luy lor ruuxam wala muy lor bakkanam wala muy lor xelam wala muy lor li nga xamante ne mooy xolam ndax nan bàyyi xel ne safaanu bakkan ci jëmmi boppam noonu rek la li nga xamante ni mooy enragé bakkan xamal ne mooy li nga xamante ni mooy lor sa waaye xamal ne tamit li nga xamante ni mooy li enragé sa ruux mooy li nga xamante ni si jëmmi boobu mooy dérangé sa bakkan kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax te xam ni weeru koor wi moo nekk nii waaye teewul liñ ciy def lépp nañ koy saxal bu baax a baax mbokk mi ñu bàyyiwaat kenn bu baax a baax li nga xamante ni. mooy sarax yi ñu war di yëkkati tey di ko jox ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo ndax weer wi weeru sarax la weer wi weeru fàttali la ñi nga xamante ni ay néew di doole leen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ndax bu ñu demee bay génn si weer wi yeneen di gis muurum koor moomu ñu ngi koy génnloo ngir mottalee ko li nga xamante ni mooy sunu koor dara warulu ko lu dul ngir bàyyi si xel ñi nga xamante ni yàlla dogal na seen loxo jotul seen digg ginnaaw weer wi tamit weeru yërmande la si sunu borom subhaanahu wa taala jëmee ko si mboolem jaamam yépp waaye weeru yërmande la ci diggante jaam beeg moroomu ndax raxma googu nga xamante ni ñi nga koy am ci diggante jaam bi akub jaamam dina tax yu bëree bëree bëri yi nga xamante ni ay gàllankoor la yu am ci sunu diggante deñ gi nga xamante ni mi ngi koy deñ ci suñu weeru koor yi ba ni yeesalaat suñuy jikko gën a indiwaat ak bëggante indiwaat geneen yërmande koo xamante ni dëggantaan ku nekk rek yaa ngi koy gis ci sa xar kanamu moroom mu doon loo xamante ni buñ si génnee tamit dafa war di doon loo xamante ne lu sax ba faw lay doon kon su ko defee yooyu yëpp ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi amal mbégte ak kontaante comme ni ñu koy waxee chaque jour. ngir bëgg ngeen di topp suñu jotaay bi waaye teewul ngeen woy di saxal seen abonnement ci seen bii di Mik TV su ko defee ngeen mën di am seen jotaay bi di jotaay dégg sa njëriñ wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.